Je répondre mais imam mooy nous ñu non non David. non non non non non non Non, non non non non non non non je t'en prie point de presse Non, Non, non. non. point de presse non non non day wax. bàyyi. ana ku ñuy jox. anam. eh anam. bàyyi ñëwal da ngay wax. waaw day rafet eh li ma. jërë ngeen jëf internet Pikine Info ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar di am contentement saa su nekk ni ñu baaxoo di leen koy defalee rek tey nag dañoo dugg ci beneen domaine mu nekk li nga xamante bi moom mooy coowlu jumaa yi bari na jamono ji ni muy yi làkku ak yi feeñ tey nag dañu fas yéene ci benn bu feeñ ci jumaa yi mu nekk yi jamono ji coow li bari na lool ku ci nekk am nga loo ci uh, dégg waaye li ngeen ciy dégg la ci biir moom moo ko raw ñi ma toogal fas yéene indi ay leeral ci mbir moomu le laata ñuy sekk waxtaan dama leen di nuyu bàyyi leen ñu daal di nuyoo ak ñu doog a dugg ci waxtaan bi tonton ñu ngi lay nuyu di la ziar. auzu billahi samil alim min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim asalaamaaleykum wa mbokk yi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu sunu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu mboolem jullit yi di nuyu sunu journaliste yi di nuyu sunu mbokk yi xamante ne ñoom lañ ci bokk teewal ku mel ni Cheikh Tine Papis Ndione nu leen ñëpp te leen siyaara alors euh, tonton tey euh, ñëw fas yéene waxtaanee li nga xamante ni bii moom mooy euh, coow lu jumaay rudis bi yow nga bokk kenn ci comité pilotage bi nga xamante ni ñoom ñoo ko yoree jamono ji ni waaye laata ñuy ñëw ci coow li fi mu toll nii dañuy ñëw rek ca ndorteel ba boo ñu mënoon a tënkal rek ci tënk mbir mi fa mu fa mu tàmbalee. waaw loolu dinañ euh, kontaan loolu ci di ci wax euh, di leen ñaan yàlla sunu borom tamit vraiment ci euh, jàppandal bi ngeen ñu may ba ñu mën a gën a leeral ci mbir mi. Mm-hmm. jumaa ji nag histoire am yàgg na mais ci li nga xamante ni rek moom lañ ci dund ak moom. Mm-hmm. dina am luñ leen ci mën a tënkal. Mm-hmm. mu jógee en 2006 jàpp 2007 jàpp 2008 ñuy sant jumaa ji ci. dañ ci ay paan ndax dal bu amoon problème bu ñu mosaan di julli ci nawet bi mm-hmm. euh, am secteur yoo xamante ni dañ ko balisé woon ci biir jumaa ji mm-hmm. ngir bañoon ko fa julli ngir lu ñàkk wóor jamono boobu nag bi ñu élire sunu délégué de quartier bi Samba Dra am mm-hmm. ñu ànd ak moom rek waxtaan ak moom ci mbirum jumaa ji. Euh, xamal ko ni lii daal waru mën a nekk ndax jumaa ji tolluwaay bi doy na waar. mënuñu nañu dem ci sunu mag ñi nekk sunu jumaa ji waxtaan ak ñoom. ndax lu mu ci doon tamit am na fi ko war a mën a jaar. Mhm. Euh, bi ñu demee waxtaan ci ak mag yi tamit ñoom li ñu gisoon ni daal fi mu toll nii moo doon li war mën a nekk ci jumaa ji. Mhm. Euh, problème mu douze cantines yoo ne ñoom bëggoon nañ ko installé ci jumaa ji. Euh, waaw douze cantines nag comme ci moom dafa amoon benn ñaari appartement. Mhm. benn bi restaurant la woon benn bi dibiterie benn magasin aussi bu trois mètres. trois mètres cinquante lépp ci ci jumaa ji lépp biir jumaa ji jumaa ji moo doon fayeeku loolu. Uh-huh. ak li jumaa ji doon collecté par vendredi. ak sunu mag ñu baax ñi ñu xamoon tamit ñu nekk ci secteur bi doon def ci jumaa ji loolu lépp jumaa ji mënu ci gis boppam ba tolluwaayu jumaa ji demee noonu nga bëggaat wax ni aussi danga nga ciy defaat ay douze cantines mm. ñu gis ni ñoom dañ doon profité ci jumaa ji waaye parewul woon ci euh, defar jumaa ji ah. ci la ñu xëccoog ñoom nag ci loolu leen loolu warul mun a nekk ñu dàq waxtaan boobu tamit nañu nañu woowaat ñu waxtaan ndax ñoom dañ leen a bett ñu mën a dajale kayitu jumaa ji dajale li fi nekk ci ay xéewal mm. ngir ñu waxtaanaat ci boobu mm. tamit par wuñu woon pour waxtaan ak ñun waaye nag xëccoo nañu ñoom xëccoo nañu ñoom ba 2013 bi nag yàlla yàlla sunu borom bi def ñu dagg mbiru ji Mm. pare woon pour installé fa benn kanting kanting boobu gisoon naa ñu bind ci belle viande sama kër lañ ma woo wax ma loolu ma ñëw song ki ko doon defar muy rakku délégué de quartier bi fi nekk tey muy Samba Dra bu koy ñaanal taw feexa tey si fi mu nii dafa jagadi mm. bu moom laa ñëw fekk muy posé kanting bi ma ñëw laaj ko lii nan la demee nii mu ni ma dañ maa liggéey loolu ci jumaa ji dañoo dagg miiru jumaa ji dugal kanting bi ci biir uh-huh. euh, jumaa ji à uh-huh. problème nit ñi ñëw intervenir ñu ñu ñu ñu jële fa kanting bi ci la ñu bàyyi noonu amul problème euh, ba ba yàlla suñu euh, mag ñi man dama jékki-jékki toogaat sama biir kër ba ci àgg rek ñu indil ñu ñu woowaat ma ne ma am na benn kanting bu ñu pare pour tegaat ko foofu ma kon dafa mel ni sunu mag ñi seen douze kanting yi nekkoon ci seen xel dafa mel ni douze kanting yooyu moo jugagul ci seen xel euh, ñun nag comme waxtaan nañu ak ñoom ñu bañ soññoon nañ leen ay yoon dama tënk rek ñu bañ loolu ñu ne pour ñu créer benn ampleur pour nit ñi mën a génn wax ci jumaa ji cantine mhm. boobu dañ ko jëloon teg ko ci kaw route nationale bi ci intersection baari route bi mhm. bon ci la nag nit ñi génn lan moo xew lan moo xew ñu expliquer leen problème jumaa ji kenn ku nekk di ci wax nag indi ci ay idée mhm. euh, ci la ñu dem nag woowi sunu benn télévision bu fi nekkoon bu fi nekk euh, RDV rajo Dunia FM moom moo ñëwoon bis boobu couvrir euh, li ngay li ngay li ngay expliquer nii boobu boobu fekk nekk Euh, boobu duggaguñu woon ci gestion jumaa ji boobu duggaguñu woon ci gestion jumaa ji euh, ñu xam doon am problème ak mag ñi nga xamante def loo xamante ñun pare wuñu woon pour ñu defaat ko fa parce que jumaa ji li mu amoon gisu ci boppam mm. ñun ci loolu lañ taxawoon parce que amul Euh, ci la ñu woo nit ñi ñu ñëw RDV rajo Dunia FM euh, télévision Dunia FM ñoom ñëpp ñu taw taxaw ñu dénoncé paay keroog bi ñu leen di dénoncé tamit vraiment suñu délégué de quartier bi Samba Dra mhm. euh, moom moo defoon lii parce que moom dafay def minti service mhm. moom moo defoon moo ko bindoon ci loxo boppam pour dénoncé paay yi xamal leen ni am na ñoo xamante ni ñu ngi profité jumaaj lii ngay gis lii lépp moom moo ko bindoon ay dénoncement la yoo xamante ni mi ngi ko doon defal sunu sunu sunu sunu mag ñi mhm. mu ko doon defal sunu mag ñi bi ñu yàlla sunu borom bi defé nak ñu dénoncé leen bo ñepp ñew ñëw mm. Euh, ci lañ leen wax carrément ni leen li ngeen bëgg ci jumaa ji arrêt dootu fi am euh, boobu nag ci la Samba daw dugg ci biir jumaa ji bi ñu créé lee mag ñi nag wax dëgg yàlla ba problème ci la Samba daw dugg ci biir jumaa ji bi mu duggee ci biir jumaa ji tamit lii xalaatam mooy paa bi nga xamante ne moo dese woon gestion jumaa ji mm. parce que ñoom dañ ci amoon benn association boo xamante ne moom moo yoroon jumaa ji mag ñooñu doon wàcc liggéey xam nga 68 ak léegi ci ay mag ñoo xamante ni yoroon nañu yenn âge yi doon gérer jumaa mm-hmm. ñu ci bëri wàcc nañu liggéey ba mu desoon ci ñaar ñaari pa dong muy pa Idrissa Diagne yàlla wàcc na liggéey moom it léegi mhm. ah, ak pa Seydou Lam mhm. mais nag quand même ñun avant pas Idrissa di gaañu ñu ngi ci biir gestion bi. ah yéen euh, balaa balaa pas yooyu waaw ba bi dese woon gestion bi avant muy wàcc. Euh, liggéey boobu ñun yàlla sunu borom bi def na ci biir. Mhm. mais nag ci Samba sunu délégué quartier bi pas boobu la songoon. menacé ko. paa yi tamit ay mag lañu ay mag lu mu la magee euh, bu la magee am lu mu la magee. Mhm. ñu xam ne ñoom géré nañu quarante et quelque ans te problème am na. Mhm. Euh, léegi Samba daw na rek ñëw song ko ak problème xaalis bi. Mhm. paa yi tamit def yëfu mag jël xaalis beeg këyit yi jox ko ko. Samba tamit bi mu jëlee ka xaalis bi fan la tolloon. Ah, boobu xaalis bi ñu koy jox paa yi demoon bi mu ko bi ko paa bi di jox demoon na ci ay soixante cinq mille la ñu wax. cent soixante cinq mille ok pardon cent soixante cinq mille moom la ñu wax moo nekkoon xaalis moom moo nekkoon xaalis bi nga xamante ni moom la ko paay joxaan moom la ko moom la ko paay joxoon ci xaalis boobu la ko paay joxoon bi ko bi ko paa joxee. Eh, eh, defal def ma may ma foofu ma ñëw eh, jumaa ji li nga wax ni mu ngi fay woon yëpp du jumaa ji doon ko doon ko doon ko am mu nekkoon ay cantines yu ñu luye woon ak yëpp bi ñuy joxee këyit yeeg yooyu 165000 moom la fa jotaat. 165000 la paa wax ne moom la ko paa bi jox ak ay document jumaa ji. tegalu ko ci leneen. moom nag bi mu jëlee loolu ci paa bi. dafa waxoon ne dañuy ah, ah, woote ensemble général. Mm. parce que jumaa ji dafa am ay jàkk yu mu polariser. Euh, waroon na dem ci ay douze jàkka hmm. euh, jàkka yooyu Poulard Rouge mu ne kenn ku nekk dañ fay jël benn imam wala benn notable ci quartier bi hmm. mu ñëw représenté jàkka jooju ci jumaa ji hmm. bi ñu wootee assemblée général boobu assemblée général boobu fa liste de présence bi génneel ma ko pardon mi ngi foofu assemblée générale bi liste de présence bi mi ngi nii mu génneel la ko bi ñu bi ñu paree pour woote loolu yàlla sunu borom bi def amoon na xëccoo liste de présence assemblée générale boobu euh, moom moo nekk nii Euh, bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu yàlla sunu borom bi defee xëccoo am fi parce que Samba moomu daf ci bëggoon nekk président. Hmm. Euh, président juma président juma ji. Hmm. sunu imam Cheikh Diop bëggoon na nekk président juma ji. mu amoon coow loo xamante ne mag ñu mënuñu ko woon a maîtriser sunu président délégué des quartiers yi Vieux Ndiaye. Hmm. Euh, mi ngi dëkk Touba Pikine moom moo ñaan imam bi ne ko lii du sotti tey nañu dàq lii ba beneen yoon. ñu ni kon léegi dañuy bàyyi intérim bu 10 mois. pour Samba yorko après xel yi xeyna ak xol yi. dina dellu si li ah, c'était en 2014. 2014 waaw parce que bo xolé feuille de présence bi le 11. le 8 11e mois. Le xolé feuille de présence hmm. bi le 8 11e mois 2014. li lepp ci 2014 bi la. Hmm. Euh, ci lañu dakh ensemble ensemble général Bobu jox Samba mu yor intérim bi pour 10 mois. xel yee xol yi mën a dellu si mois yooyu nag moom la Samba njëkk a jalgati dix mois yooyu moom la Samba téye ko téye ko téye ko ba deux mille dix huit mu nekk quatre ans yoo xamante ni woote waatu ci assemblée général mais jumaa ji li mu doon xam bon vendredi yi nag moom moo doon gérer mais ñun dañuy def bu it jotee rek lu mel ni it korite wala tabaski ñun dañuy ñëw jàpp ci liggéeyu jumaa ji ah. loolu moom dañ ko doon def toujours mais man man man personne man moom pour ma wax ci lu ma xam it daan na jot mu téye xaalis ba dootu ko mën a téye ma jàppale ko ay mbuus ñu yóbbu ko biir këram. muy ay mbuusu xaalis. waaw chaque vendredi aussi jumaa ji da doon am xaalis. chaque vendredi jumaa ji doon am xaalis euh, man sama yaay daf ko doon verser xaalis parce que sama yaay moo yoroon moo doon présidente jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo yoroon jumaa ji mhm. euh, luñ musaan a daan woowee mhm. lu ñu am dañ ko koy indil sa mhm. euh, daan na ko verser sax benn paabo ji wax vieux Diène mais paabo bi mu gaañoo la koy verser vieux Idrissa Diagne mii ma lay wax ba vieux Idrissa Diagne moom parce que jëlul jumaa ci légal agression laa mën a wax bokkul ci bureau bokkul ci dara mais dafa ñëw intervenir comme benn autorité bu nekk ci biir quartier bi rek. Uh-huh. problème am na ci jumaa ji mu daw song paa bi. noonu la récupéré menacé ko récupéré kayit yi récupéré lépp yore ko sama yaay daan na ko versé alalu jigéen ñi lu ma xam ci man lu ma xam mu dépassé ay cent cinquante mille jëm deux cent ba deux cent cinquante mille. Uh-huh. alal joo jépp dajaloo ci biir jumaa ji tey bi ñu taxawee laaj ko Samba alal ji mënu cee génnee un franc. mais alal jooju bu ko daan yóbbu këram daan ngeen ko compter ba ba mu mat. alal ji boo pare boo comme moom nag moo géré woon quatre ans yooyu. Mhm. ñoon bokkuñu woon ci gestion bi. Uh-huh. lu dul it daal ñu xam ni bisu yàlla la dañ cee war a jàpp. Uh-huh. ñu ñëw jàpp ci it bi mais après suñuy xaalis moom mooy compter mooy def lépp. moom mooy def yëpp. waaw daan naa ko xool man nag wax dëgg yàlla xam ne day yóbbu xaalis bi biir këram te maa ngi ci liggéeyu jumaa ji uh-huh. mënut a yóbbu lépp parce que ay mbuus la doon doon li mu ci mbuusu xaalis ñu këram. Mhm. loolu moom mën naa ko témoin ci xaalis bi doon dem li daan dugg ci restaurant bi ci moom tamit comprendre ma mais restaurant yi dañ doon fay ña nga fa woon lépp a ngi kii. mais waaw mais nag quand même doon fay restaurant yi ñu ngi doon fay débiteur bi mi ngi doon fay. Uh-huh. ak magasin àll bi ñu ngi doon fay. Uh-huh. jumaa ji mi ngi doon am recette par mois. Uh-huh. sunu paa yi uh, wër jumaa ji ku ci mel ni El Hadj Moussa Diop moo tiim jumaa ji Amadou Diop chef projet mii papam mu njëkk a a defar jumaa ji hmm. ay xéewalam da ci daan dem vieux Diène mi ma lay wax mu jàppale paay ci euh, mairie ba ñu defar seen jàkka ji xéewalam da ci daan dem famille Mbodj bi ngay dégg boo tey ñun dañ doon dégg moom it xéewalam da ci daan dem xëy euh, euh, moom nag mënu ma wax ci moom leer dégg nañu rek famille Mbodj daan nañ ci def alaaji Malick Cissé da daan def ci jumaa ji mën naa la limal ay kilifa yu bari yoo xamante ne dañ daan def jumaa ji euh, yegg ci lim bi da fi nga xamante ni euh, foofu nga nekkoon mooy bi ngeen demee ba ba ba coow am ngeen song ko xaalis bi nga xamante ni mu ngi ko daan yóbbu ci quatre yi nga xamante ni bi moom lañ ko moom la ñu yoroon euh, juma ji ci lañ leen jox six cent cinquante mille ak ay bor yuñ fa bàyyi yoo xam ne yéen yéen ko fay quatre ans yooyu te yi wax nii sax nga xamante ni moom la jële woon ci paa bi bi. ci la bokk dajale ko ak lim fa amoon muy six cent cinquante mille. Uh-huh. moo moo moo indi jox ko uh, waa jumaa ji uh-huh. uh, bi mu ko tegee ci comité de pilotage bi uh-huh. uh, ñun ñoo complété xaalis boobu ba xaalis bi mun a fay promoteur bi parce que promoteur bi dafa demoon ba benn jamono mu ne daf leen di yóbbu justice te te loolu xamoon nañ ñoom bu demoon justice ci ñoo xamante ne dañu ñëw wax ne dañuy liggéey ci jumaa ji kon loolu dafay doy waar jullit waru ko seetaan Amadou soññu ñu nag nañu loolu nañ ko fay loolu moo tax ñu fay xaalis boobu ba ñoom demuñu justice mais mun naa ne la ñoom loolu lañ ci ba 2000 dix-huit bi noonu bi ñu nekk ci biir gestion bi jusqu'à présent nag ci la ñu nekk ñun ci commission bi lépp ngi leer xëy na sama gars yi leeral ci lu mel noonu parce que ñoom ñoo yore mm-hmm. euh, ñooy commissaire au compte ñoo yor finance ak yooyu a ci question boobu mooy que bu ñu leen moom six cent et quelques mille la ñu indil ñun ñoo ko complété fayal ko bor kon dërëm bàyyiwu ko ci jumaa ji mm-hmm. quatre ans yi mu géré ni nga ko waxee dañuy daal di tourner ci ñi keneen ki nga xamante ni bi moom mu ngi toogee ci sama ndeyjoor yeneen leeral yi moom moo ko war a indi jërëjëf yow yi tamit say leeral yaakaar naa nit yi dégg nañ la bu baax a baax te indi nga ci ay leeral yu wóor macha allah bu baax ñu ngi lay ziar. waaw ah, asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam nuyu yéen waa Pikine euh, info euh, di leen sant ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a taxaw leeral mbirum jumaa ji alors euh, dañuy daal di ñëw rek ci li nga xamante ni bi moom ngeen yor jamono ji muy gestion juma ji de 2018 à 2022 boobaa léegi ngeen yore ko yan leeral nga ñu mën indil ci at yooyu noonu ngeen ko yore Euh, Alhamdulillah, rabbil alamin question bobu na sawar lol pour tontu ci. Uh-huh. parce que euh, depuis 2018 euh, man ma man dama ma super ma superviseur ci biir juma ci depuis 2018 depuis 2018 man ko ko ñu ko commencé à 22 juin 2004 2018 ba légui ma superviseur liggéey bi mu tegu ci yoon. ci ni nga xamantene mom lu ko ñëpp bëggee woon mu tegu ci lu leer parce que depuis jumaa ji doon jumaa ji. lu leeree nii ñi fekke woon démb fekkee tey nee ñu lu leeree nii ñu ko ñu yàlla nag diñ ci dimbali ñu du ko superviser boobu ba léegi Abdou Aziz Diagne di réceptionniste bi mooy xaalis bépp xaalis bu dugg moo réceptionné signé comme comme réceptionniste man ma comme superviseur comme quoi ne li ma gis na bi doo ko dugg buñ waree génn bu beneen liggéey bu ñu war a def moom bu ñu bon de commande la def chef de projet bind ko euh, euh, imam signé ko chef de projet ko. bon de bi man ma signé ñun commissaire compte yi man ak Abdou Aziz mhm. ñu dem décaissé. ci liggéey bu leer boobu la ñuy liggéey. de 2018 mhm. ba léegi nii. ba léegi mhm. euh, gis nañu ne euh, coow li nga xamante ni bii nii nekkoon na fa euh, ci diggante quatre ans yi ci ginnaaw nga xamante ni bii yor nañu ko jumaa ji ñu fa nekkoon bàyyi fa lu tolloog six cent cinquante mille ak bor bu toll ci deux million mhm. ba yéen ñi nga xamante ni yéen a ñëw yéen a ko lijjanti fay ko d'abord bor boobu bi ngeen koy fay naka ngeen collecté xaalis bi ba fay ko. collecte bi nag collecte lu am solo laaj nga ma lu am solo. Mhm. parce que dañu fekkoon lu tolloog. ay ay vieux de 60 ans. 65 mhm. ans jàpp 70 ans ñoom ñoo doon collecté foofu ñu non ndaw mën ci si ñu ko collecté ay 50 ans 50 ans yi lay am ñu fekk leen fo ñuy liggéey liggéey bu am solo à 2018. surprise bu ma ñu dépp bi mu bëggee def ay magasin bu ñu jóg nag projet bobu parce que ñom ñoko sété ji ne ko dañoo am ci projet de 14 cantines xaw ma 12 hmm ñom ñoko sété won mo ah. fekk siwu leen de mm. parce que mom fi lu juddo fa lu juddo yoro fa magge fa mm. musu fa taxawu di wax ay waxu ñom ñoko ñoo mm. nek dañu am projet fi ñoom ñu ne dafa ñëw def dafa leen ko fii sabilla ban man mooy investir xaalis fii sabilla uh-huh. ñun ay businessman lañ. Uh-huh. fu ñuy def suñu xaalis fu lu leer lay doon. Uh-huh. te aussi dañuy xalaat gañe foofu. moom businessman. am na am na ay magasin tissu mhm. day ubbi ay ay ay ay ay école nuuru daare mhm. kon xam na ni liggéeykat la uh-huh. kon moom du dugal si xaalisam du aussi fu muy dugal xaalisam fu leer la koy dugal tamit heure bu koy heure xaalisam fu mu koy def UC lay taxawal uh-huh. liggéey bu professionnel lay def mhm. xam na li muy def nelawul booy pikin la xam na lu xew moom gars yi booy dañu ko bëgg gars yi dañoo gars yi dañoo yaakaaroon ne mën na nañoo jaar foofu pour am lu ñu bëgg ak moo jumaa ji di fay ko seen magasin di lekk ah. Assane Diop ñëw jóg nañu jóg leen boo leen jógul lii dina dina sotti parce que ñun dégguñu lu dul dimanche la dagg garab yi magasin lañ fiy def. loolu ngeen ci am waaw ñun loolu lañ ci am ñu jóg ñu ne lemee la moo xew ñu ne ñu non parce que mag ñi dañ fee amoon ay projet cantine kon ñun dañoo war a euh, léegi loolu lañ bëgg réaliser am nañ benn promoteur bu ñëw pour teg mhm. ñoo leen mais loolu du parce que population bi waxtaanaguñ ci. yéen mhm. cinq personnes. un début mhm. cinq personnes. yéen yéen a am audace su teg lu mel nii. lool du am.

2018 moom la ñu roj la ñu jëlee xaalis bi ci loxoom. Mm. yóbbu ko ci kenkaayari maam Diarra ba tey jii xaalis bi foofu lay dem. Mm-hmm. ñaari signature moo ko fay dugal. mooy mm-hmm. sama signature ak signature Abdou Aziz Diagne. Mm-hmm. moo fay dugal xaalis comme ni mu la ko expliqué woon nii léegi. noonu la noonu noonu noonu la ñuy liggéey du xamante ne moom. dugal na ko mais ba tey ba xamante ne bii noonu ngeen def ba fay boru 2 millions. li def ba fay ko. mooy dañuy si yalwaan bi ñu doon yalwaan. Mhm. di ko verser ca ca ca ca ca kànkayte maam ki mhm. maam jaara bi nga bi nga ñun bi mu ñun yàgg bu ñu ñëwee sax 2018. topp nañ ko si ne ñaata ga yow quatre ans gestion yoo xam ne yow yaa doon lépp. Mhm. yaay président yaay trésorier yaay secrétaire yaay lépp xaalis bi yëpp yaa ko doon jël yóbbu sa kër. Mhm. li nga dugal sa kër ñaata la ci xaalis. alors euh, yéen ñi euh, ndax jàppoo leen ni foofu tamit def ngeen euh, erreur ndax lu toll ni juma li ñu koy yalwaanal ni muy toll lu waral booba ngeen bàyyi benn nit moom muy gérer gestion bi ndax jàppoo ni ci jamono jooju su ngeen tegal benn bureau boo xam ni dina am trésorier président secrétaire liggéey gën a am transparence. waaw kay alhamdulilah rabbil alamin kontaan laaj boobu ndaxte man xawoon naa sax fàtte foofu foofu waroon a commencé yéeg. Mhm. li tax loolu mujjul am mooy moom ci boppam mooy li la wax moo ñu jiite woon en 2014. ñu yaakaar ne dëgg lay mu dem ba biir mu dem ànd ak ñi nga moo taxoon mu dénoncé mooy dénoncement yi ñu ko doon dénoncé. mooy wane nga ko léegi. Mhm. paa wax naan ñoom c'est des topp ci ginnaawam yaakaar ne mooy ñëw taxawal dëgg mhm. moom daa retourné dem nekk ci ginnaaw paay ànd ak ñoom àndaat ak ñoom mhm. ba pare ñëw jàkkaarloog ñun jàmmaarloog ñun ñun nag ci ci diggante boobu diir bu gàtt fexe nañ ba yàl ba ba màjjaal réfectionné mur bi nga xam ne dañ ko daggoon pour dugal fa ay cantine mhm. yëkkatiwaat mur yi raax peinture dugg ci biir jumaa ji changé ventilo yi yàqu yi ak lampe yi yàqu yi as luy ak aspirateur yu mag aspiré jumaa ji ba nga xamante ni ku fa dugg ku fa dugg nga xam ne changement am na bale jumaa ji mbalit réserve ba ba peinture dañoo peinture ba peinturaale garab bi. Mhm. bi nit ñi ñëwee vendredi bi julli sa ñëpp dañ doon apprécier ña ñan ñu liggéey lii ñu ne xale la ñuy ñaanal xale yi. Mhm. ñu loolu nag juróo ko frustration. Mhm. moom ak mag ñi. ñu retourné porte ñu plainte. ah damaa xam ne waaw ñu porte ñu damaa xam ne liggéey bu rëy boobu. liggéey bu rëy boobu nga xam ne ay xale yu ndaw ñoo ko liggéey. Assane te Assane Diop jiitu ñu. ñu ñoo leen ñu liggéeyal yàlla ci jumaa ji ñu ñu ko liggéey te yàlla rek tax Uh-huh. ligue bi ñu ko commencé jour dimanche lundi mardi mercredi ba jeudi ñu pare collecturé. Mm. defaat ñu ñu bi yàlla loolu moom yàlla ci japp parce que mm. yow si même pas 4 jours nga réflexionné ci mur bo xamanteni tay tey jii message bi su ma lu gudd la. Uh-huh. ñu ñu ñu ñu ñu raax ko biir ak biti. ci diir bu gatt ci diir bu gatt 4 jours. peinture ko peinture ba peinturaale porte yi ak garab yi. Mm. ñëpp ñëw apprécier na changement amna na. allah mais bi ñewé mais lundi lañ xëy porte plainte Amadou sa sa waay ne ko li ngay li ngeen def kenn sant leen ko. ci jumaa ji waaw te waaw ci jumaa ji ne ñun sant ñu leen def loolu yóbbu ñu police def foofu jiitu jiitu ñu police yàq suñu dara ba bi ñëwee ñu ne ñu li ngay def arrêté leen kenn sant leen ko. ci ci ci ci ci ci ci police ba. ci ba ñu insister ñu defaat beneen plainte yóbbuwaat ñu ñu dem ñu ne ñu arrêté leen parce que yéen amu leen dara luy wane na yéen ci jumaa ji ngeen keneen bokk kon li ngeen ah. def arrêté leen ko loolu moo taxoon loolu moo taxoon ñu def ñu taxaw seetlu mm. di ko suivre nag de près gis ko muy jël xaalis bi di ko dugal biir biir biir biir këram mm. ñu xam ne kon am na li mu bëggoon ah. mais nag wuñ ko ci ah. parce que dem na ba benn dimanche mu organiser mu ne day day organiser euh, assemblée générale kii waxoon na ko fa assemblée générale yàlla mujj leen weer nekk dafa am ñaari lubu yu dëgër yoo xamante ne moom moo ko teg benn bi moo ko teg ak mag ñi. Mhm. benn bi Cheikh jóob ku ñu te nee na imaam la. Mhm. Euh, moo ko teg ak waa kër ak ak waa ak waa kiyam moom ak ak groupe am. Mhm. ba ñëwee ba ca ensemble gérant nag fa la affaire yi jaxasoo. ba waaw ba ñu tegee seen lubu ba yaakaar ñoo ci nekk nag Cheikh Diop jóg na leen. lii ngeen fi bàyyi ki fi nekkoon 40 ans boo leen ko bëggee continuer ku reconduire ko def ko président. mooy li fi nekkoon dafay continuer. te man dama bëgg a nekk président. Uh-huh. moom mu mer nekk fa ne ko waxante wuñu woon lu lii bi ñuy wax dama wuñu leen lii rek. ci ngeen xam ne nag am na am na lu ñu waajoo am na uh-huh. am na ñoom luñ doon luñ doon ngurumtu ci suuf. ba bëgg ba ba bëgg a gedd bi mu gédd bay génn maa ko dab ci porte ba ne ko taxawal mu taxaw man ko doon dana jubóowuñu mun naa mën na ko boo génnee ci jum boo génnee fii jumaa ji fii boo ko génne assemblée générale mooy Cheikh Diop doon président te boo ko doonee li ñu naqare woon dañu ko ndax Cheikh Diop day xeex tarixa yi te ñun tarixa lañ gëm te jumaa ji ko fi teg dañoo waxante dañuy waxante ba pare nga ñëw ne da nga a doon président léegi man tamit dama lay opposé man tamit dama bëgg a doon président yow it nga def noonu waaw déedéet man maa man maa délégué bi ci boppam bi doon yàq deru ni deru kii ci biir ci kii. ci réseaux sociaux yi. Uh-huh. man maa ko fekk foofu na ko ñëwal nga opposé ko. boo ko opposé rek affaire yi tas su ko defee yow nga préparé ji parce que kii dalaa laa teg dil mm-hmm. da nax xam nga ci mm-hmm. ci la ñëw def ko loolu affaire yi imaam ne léegi comme que fi mu toll nii dañoo waxante woon li ñuy waxante ba pare kon ñoom am na lu ñu waxante woon. Mm-hmm. ñëw ba foofu mu indi jaxasoo kon léegi nañ leen dem dix mois ba xëy na dellu si ñu doog a waat. ensemble général toog waxtaane affaire bi. Mhm. ci yooyu nag profité na ci nee na defar na ab bureau boo xamante ni Samba Mbodj mooy secrétaire général. moom moom nee de Samba mooy trésorier. Mhm. moom mooy secrétaire général. Mhm. Euh, waa ji euh, Idrissa Diagne mooy président bi. moom daal defal ab bureau am boo xamante ne daal dafa jékki-jékki rek présenté leen. présenté bi bureau bi te bureau boo xamante kenn xamul fan la jógee xaw ma dafa si asamaan si wàcc xaw Mm-hmm. bureau boo xam ne mi dafa doon ah, ci ensemble ensemble général fa mujjee mooy dafa tas. Mm-hmm. ndax da ngaa bëgg doon président. Mm-hmm. mais foofu kon kon kañ nga fa dajale waat nit ñi. ba def fa bureau ba def fa bureau te nit ñi yëguñu ko. ñu xam ne kon bureau boobu légalul. bi ñu ko yogee pré préfecture adjoint préfet bi téye na ko ne leen lii seen lii légalul bu njëkk ba ñu fi nekkoon ñëpp dee nañ bii ngeen moomoon tamit amul bi amul benn agent administratif bu ko signé kon loolu légalul. mu xam ne ñun luñ ko doon wax am na kon loolu noonu ñuy def ay set ay taf yëngal la woon rek. ñun xam nañ nu mu nu mu demee la boo xam ne ko defoon benn bureau fictif nii rek. Mhm. pour jéem xëbal gars yi. Mhm. ñun di yàlla na na mu waroon. yàlla na ko nag bi mu bëggee def magasin am yooyu muy deux mille dix huit. Mhm. ñun bi ñuy dugg ci jumaa yi ñëw di sécuriser xaalis bi. loolu lañ doon xeex si. mooy magasin mooy da doon bañ cantine 2014 ñëw indi ay magasin 2018 ñu ne ko lii du fi tëj sax du fi mooy alal bi dootul dugg sa alalu jullit ñi la ñëpp ko bokk. dañ koy teg ci yoon teg ko fu leer. Fata ñu wooy Fata kii moo seete Fata woo ko ne ko ñëwal. parce que mag ñi ñu ngi bëgg a def noonu te duñ ay noonu dañ leen bëgg teg ci yoon. ñu ñëw nga nekk comme modérateur. nga ñëw fexe ñu waxtaane lii teg ko ci yoon ki ci jàmm Fata ñëw dugg ci def dox ci lu rafet. wut ne yéen ñëw leen yéen ñiy bañ cantine mhm. yaakaar ne li fi nekk leerul ñëw leen ngeen ngeen bokk nekk cinq personnes mhm. mag ñi nañ bàyyi fii seen cinq personnes ñu ànd def commission ñu ànd liggéey mu leer mhm. ci loolu li ñuy liggéey di ko liggéey di ko léegi ba ba ni ñu amee projet wuti chef de projet ñoo indi présenté leen ko muy Amadou Diop ñu doxal noonu la ñuy ba tey ji amul dara loo xamante ne nii lëndëm na de deux mille dix-huit premier versement cent quinzième versement amul dara lu ma ci rëcc lépp ngi ne macha allah c' est vrai que doy na waar. Mhm. mbirum juma. Mhm. juma kenn moomu ko néegu yàlla la jullitu yàlla yi ñoom ñoo ko bokk. Mhm. waaye def ci am ni ñoo xamante ni bii nii dañuy jàpp ni ñoom ñoo ko moom seen i mbiru bopp la yéen ngeen di ay ndaw yu taxaw ngir euh, xeex ko mille 2018 ba deux mille 2022 ngeen yore ko. waaw di récolter xaalis bi di ko denc. ndax mën nañu xam euh, jamono ji nii boobaak léegi ñaata ngeen jot a am. waaw mën naa ko mën naa ko xam parce bu ma toogee commission moom de facture yi. factures yi ñun ñoo koy si euh, trois trois factures lay ki la bi ñu ko defaree pare trois factures lay doon benn bi mooy Abdou mm-hmm. Aziz la réceptionniste man maay euh, superviseur bi. Mm-hmm. ak ki yor kees gi muy kii maam jaara kenkaayiri maam jaara ñun euh, xaalis bi noonu lañ ko defee soo defee ñetti factures yooyu xam naa benn benn du ci mën mën a rëcc. Mm-hmm. léppay leer. waaw ci ñun ci noonu la ñuy liggéeyee. ñu ngi nekk ci fu mu toll nii ñu ngi toll ci.

ne ko dencal ma ba liggéey bi tàmbali. Cheikh Diop tamit tamit moom moom tamit dañ ko dénk xaalis bi. Mhm. day bàyyi ba liggéey bi tàmbali mu jënd koy matériel. Mhm. moom topp. Mhm. ci loxoom. mu ngi ci loxoom muy alalu jumaa ji. muy yi nga xamante ni moom ngeen. waaw kay ma bu ñuy ñëwee 2018. biñ ko biñ ko sëñ maanaam euh, euh, recette bi ki àjjuma nee na paa yi 3000 lañ doon am 40 ans yi moom bi mu ñëwee. paa ko doon yore woon 40 ans nee na ñoo la doon am

deux mille deux deux cent deux cent vingt deux cent deux mille la. Mm-hmm. te moom nee na dix mille quinze mille dix sept mille la doon am. Mm-hmm. loolu xaw ma jaaxal. Mm-hmm. ñu ma xawar beneen àjjuma beneen àjjuma bi ñëw nekk trois cent mille. ci ci digg coow boo xamante ne sax nit ñi saraxee tuñ woon. Uh-huh. kon moom ñaata la doon am. ci biir dix mille yooyu. Mm, waaw ñaata la doon am maanaam. nañu wax dëgg. nañu wax na moom ñaata la doon am réellement. par uh-huh. àjjuma. man lu man man loolu mooy sama liggéey parce que man superviseur laa ci ci ci commission bi am naa mm-hmm. droit laaj ko. parce que man mënu mën yow mënoo ne c'est sa interview dix mille quinze mille dix sept mille doon am ma ñëw premier jour confrontation ñu génnee plus de deux ñëw ñu génnee plus de trois cent euh, trois trois trois cent mille muy lan ci ñaari àjjuma nga am cinq cent euh, et quelques mille. Mm-hmm. léegi te moo mën ay dix mille quinze doon am. mais am na lu am na lu leerul. war na ko leeral. Uh-huh. loolu nag ba pare mu génn ci réseaux sociaux yi di di yàq deru nit ñi ndax lan. ñun fexe nañ ba xaas ba dematul këram ñun li liñ ko def ku doon moom mu mer mais nag dañ ko dimbali parce que àllu mbooloo la. Mm-hmm. moomu ko ay njabootam moomuñu ko. Mm-hmm. jumaa ji moo ko moom. Mm-hmm. kon buñ ko jëlee ci ay yóbbu ko ci ngaay bi dañ koo dimbali ndax bu fa gënoon a yàgg muy gën a dugg. mu ngi nii war naa leeral quatre ans kon buñ ko bàyyiwoon muy kon liggéey xaalis di ko yóbbu ak ak quatre ans yi nii ñaat lay doon. du ñàkk ni moom tamit bu euh, seetaanee. seen yi leeral moom tamit dina bëgg a leeral. am na coow loo xamante ni bii jamono jii nii moom moo gën a waral seen ay sortie muy. Euh, plan yi nga xamante ni bii nii taxaw na ci euh, jumaa ji laataa ñuy ñëw ci plan yi dañuy ñëw ci mbirum 20 pour cent yi a ngeen leeralal ñu foofu balaa ñuy ñëw ci plan yi. ok mbirum 20 pour cent yi man comme ba léegi man dama bokk dama nekk ci finance bi mën naa ci wax. 20 mhm. pour yi dañoo ñëw tak premier jour dañ ko wax naka ngay ak nga mu 20 pour cent mhm. en 2016. 2014 2016 man commission bi coytu ko commission manam naka ak ak ak parce que bobu ñun ñu sax ñu ci na ba 10 2016. ku dee ku dee yàq yàq sa bàmmeel comme indi kaamil moo waat ko man ak Yaya Diallo ñoo jàkkaarloo kër fii ci ci bitim ñoo àndoon dem laaj ko loolu. Mhm. mais bi ñëwee 2018 ma laajaat ko ne ko pourcentage nu muy daf ma ne 20 pour cent la mais malgré 20 pour cent yëpp mais ñun ñu ngi dugal xaalis amul problème. parce que mhm. mag ñi ku ñëw indi 15000 di nga am di nga am benn benn 3000. ku indi 10000 mhm. di nga am di nga am 2000 francs ci àjjuma ba ba ba àjjuma. te 20 pour lu ko fi indi mooy kii moo njëkk taxaw. li tax mu taxaw wax ko mooy ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ñëw doon xeex juma euh, cantine yi ba ba persister ba dugg ci biir ba sécuriser sa bi mm-hmm. ñun ñoo dem ba biñ nekkee ci projet biñ demee ba am projet mm-hmm. fal chef de projet mooy Amadou Diop mm-hmm. ñu juree ko ne ko yow lañ jiital yow lañ wóolu yaay technicien bi yaa xam tabax uh-huh. yaa xam tabax yow la ñu jiital léegi defaroon ñu plan indil ñu architecte yéeg yëpp maanaam liggéey bi daal ñu solo ko xam nga koy chef de projet koo ko fal uh-huh. bu ne ko xanaa di nga ko jox lu mu ko defaree. topographie ingénieur yi ñëwoon di suuf si sax ndax attan na jumaa ji ji ji mu ñu war a liggéeyal. moom moo leen fay ci ci propre xaalisam ba léegi laaju jumaa ji cent franc. bi ñu demee ba nga xamante ni na ko présenté ko plan yi boobu jumaa ji kenn wàcceeku ko plan yi la ñu indi ko plan bi mu wuroon ko gaa yëpp kontaan maquette bi maquette bi la ko wane gaa yi kon mu génne plan yi xam plan yi ak maquette bokkul gaa yi ñu ñu ñëpp dañoo jommi parce que da leen man juma ji ma indi ni juma yi ñaari étage la bo xamanteni du am put ci biir ñu bëri dañoo taxaw di xol ne ko lool nu mëna a nekk. moom domaine am la. bi euh, lu weesu lu jitu loolu ñom biñ ñu plan ba paré yóbbu nañ ko ci mawdo moy taw ma am kema abdou mu teggon première pierre bi. mu rafetlu ko ne juma yu melni kat buru lu mako gis Sénégal li ay Qatar ak ay ki nga wa fi fekk. mom mhm. ci bombe Amadou Diop ci bombe mom ay ay kiyam ay xaritam yi nga xamante ne ñoom la bokkal liggéey bi ku ku ci woon jumaa ji nga ko naan jumaa ji lu tax lu tax nga projet bu doon ni nga koy yóbbu Pikine ko mhm. kon lu ma am ci lu uh-huh. mu mu ko mhm. xoolal plan bi ñëpp ci apprécier mhm. parce que bi ko indee ci jumaa ji ko présenté keroog am na yu bëri yu ñëwoon Pikine Pikine direct laa ci xàmmee en direct de Pikine ah en moom laa ci xàmmee am na ñeneen nag ñu ñëwoon mais man kooku xàmmee naa ko ci. bi mu ñëwee def na gros plan ci biir jumaa ji def gros plan ci biti bâche bi noonu ci biti sax ñaari fan ñetti fan après rek ñoo gis gars yi ko. mais won kon mooy wane na plan yi plan yi leer nañ ñëpp kontaan ci. mu doxal ci du ci doxal du ci doxal coolu daal xam nga bi soxna si fan la tàmbalee. Mhm. bi mu demee ba ne damaa war a tàmbali. moom moom moom de projet bi nga xam moom la jiital ne ko yaay lépp. bi mu demee ba a a boo xamee damay safee chef de boo ko jiitalee ci projet. Hmm. mooy ko ni ji mooy liggéey bi yëpp mu ngi ci loxoom. mu ngi ci loxoom koo xamante ni entrepreneur nga laaj naa la sa CV ñëwal. Hmm. nga won ma sa CV ma jox la projet bi nga liggéey ci ma xool ndax am nga compétence liggéey ko wala nga wax ndax ndax hmm. ko liggéey moom loolu moom moo ko war a gérer. léegi lu waral ba mu demee ba war a tàmbali coow li ñëw. parce que ñoom xamuñu ñi mu ko sekkal xamuñu. professionnalisme bi sam bi bi bi bi bi Amadou di liggéeyee. Mm. chef de projet la. Mm-hmm. moom tey ku ne damaa ku ne mën naa. moom moo la war a moom moo la war a xool. Mm-hmm. moom moo la xool ndax mën nga wala wala wala mënoo. Mm-hmm. mais moom ñoom Amadou dana lancé naa appel d'offre rek ñu ñëpp ñu jaxasoo. chef de projet mooy lancé ah, ah, appel d'offre. Uh-huh. ku képp ku bëgg liggéey boo ñëwee ay dossier am loo xam nga koy teg. Uh-huh. ñun suñu yoon nekku ci. xam ñun la moo ñu war a. lijjanti xaalis bu ñu bu jumaa ji bu bu jëm ci jumaa te moom pare na. pour def xaalisam benn. fayul fayekuwuñu ñaar bu ñu demee ba ci démol ba ci démolition bi moom moo indi entreprise am oto bu mag bi doon toj jumaa ji moom moo ci yëgal boppam te ça fait des années mosul yëg ci oto. Mm-hmm. mag la. parce mu ngi dem mag léegi yàlla na ko fi yàlla bàyyi dëgëral ko ba mu liggéey jumaa ji ba mu pare te incha allah dina ko liggéey. bi moom moo tojal boppam jumaa ji moo ko buub ak ay camion propre camion. Mm-hmm. laajul jumaa ji un franc am na ñu doon wër noo jox nañ ko njëgu essence. kii un million yàlla xam na ni dafa indi benn 4x4 L200 bu weex boo xamante ni fu carburant jeexee moom mooy dem chargé 4x4 bi naa ba léegi laajul jumaa ci ñun leen lañ xam leen benn daal xam naa ci daal gis naa ci daal benn 900000 boo xamante ne moom fayoon na ko mooy porte bi nga xamante ne moo xam nga oto yooyu bu ñuy ñëw dafa am ci oto bi leen teg. Hmm. man ñun 900000 yooyu lañ gis si li mu fay porte char boobu mais à part ça leneen lu mu fi def ci ay million ñun xamuñu ko. waaw moom te lépp moo ko def ci ay propre moyen am ne dañ la ne yow yaay xam ne lépp looy def ñoo ko ñun ñoo ko waroon jox mu fasi mu defal ñu fi mu yombaloon ñu loolu yëpp ba nga xam ba ci collectif bi bi mu ko daalee pàcc ba ci collectif bi daf ñu ne ñun ñun entrepreneur yi tey jii am am na entrepreneur boo leen woowee jox leen marché ba pare ñu boole ci ñoom seen défi ñu boole ci collectif collectif bi collectif bi dafay cher léegi nañ collectif suñu suñu bopp collectif bi. ñëpp ci ànd bi ñu ci waxtaanee ba mu des Fata Sarr ñàkk ànd bi mu ci ñàkk ànd teewul def nañ ko parce que ñun lépp lu ñuy lu ñëpp d' accord la ñuy def parce que commission la ñuy liggéey nee parce que xamul xamul professionnalisme bi bi euh, kii di liggéeyee bi Amadou Diop di liggéeyee Amadou Diop c' est un professionnel moom liggéeyam da koy teg ci yoon lim leen fi mu leen yóbbu ci niveau lañu lañu lañu lañu lañu lañu yàggul xaalis bi ñun ñu koy dugal tey muy man ak Abdou Aziz ak kii tey buñ ko naree génne ngi mënuñu te sax dem dem dem kii dañ ko dañ ko codé imam bu ko si ñëwul chef de projet si si euh, signé wul ñun ñaari commissaire en compte doo doog a muy quatre signature mooy génne xaalis bi ci ci ci ci ci ci kenkaayir bi kon xam nga ne kon de 2018 ba léegi nii ma lay wax ni amul dërëm bu mën a réer ci dërëm ci xaalis jumaaj te moom maa ngi koy dégg ci interview mu naan ñoom ñoo ko fa def moom bokku ci ko def moom dafa moom dafa am lu mu ñu war a leeralal moom nag ba léegi nag chaque chaque chaque aajo mu ngi ñëw toog toog ba tey mais nekkatu fa dara

man moom mo taxone mag ñek fi bàyyi ñu ne ko ah mu ne waaw ñu ne ko kon fay dañ parce que li bari na mu ne bàyyi ko fi ndax ñi fi nekkon doonu ci am dara comme li dem na len ci am seen muy ay mag. di def ci juma ci ay moyens muy benn plan. Mhm. ñaari plan yi fan la jógee. yeneen ñaari plan yi mu ngi jóge ci bi nga xam ne taxaw na ba ne donte ne yéen a ngi desal seen xaalis xaalis boobu téye leen ko mu man dinaa def fii sabila kii bi fondement bi xam nga kii ñëpp xam ne fondement mooy mooy mooy mooy mooy mooy juma fondement mooy mooy mooy bâtiment surtout fondement bi xam ne deux étages la boo xamante ni du am putu ci biir xam nañ ne fondement na mais ba tout mu ne maa koy sasoo moo ko jaayante loolu jaayante la loolu ko xamul yàlla mënoo ko loolu jaayante la moom moo ko jaayante ba pare na ma man maay fay promoteur bi ba pare na waxuma la promoteur mais euh, manœuvre yi fay léegi sax maa leen di fay entrepreneur bi waa entrepreneur bi moom moo koy fay. waa léegi bi mu waxee loolu rek automatiquement la ñoom ku ci nekk jóg naan am nañ ñun tamit dañuy am nañ plan parce que waxoon nañ la nga wanoon suñu plan nangam nangam Fatra mi ne musul gis plan moo taxaw ci jour pose première pierre bi tagg plan Amadou Diop ne plan bi du am poto ci biir ñaari étage la day am morgo day am euh, institut islamique lan lan moo ko xam loolu ci koo xam ne taxaw nga neen gisoo plan ñun am ñu accès ci plan bi gis nga wax bu dofee nopp yi koy dégg na wér parce que dafa am dafa am dafa am ay wax yoo xam ne du wax du ay du ay lii du caaxaan jumaa du caaxaan buñ ko politiser ñoom bu dee dañuy politique mairie baa ngi nii buñ ko soxlaa nañ keneen dem réew maa ngi nii bu dee nañu politique nañ politique ci loolu mais lii jumaa la mbiru yàlla la lépp luñ fi wax na doon dëgg te ñu sellal dëgg gi dëgg dëgg ay dëgg sax doo dëgg sax doo ko organiser dëgg moom dëgg la da ngay wax dëgg mu doon dëgg mais takk la fii di taf yëngal fii di xëcc fii di am na yoo xam ne mën naa ñàkk nañ ragal yàlla te ñu xam ne lii jumaa la néegu yàlla la néegu yàlla nag yàlla moo koy defaral boppam boo amoon sa sax ne dama koy tàmbali balaa ginnaaw suba nga def ci ay milliards preuve laquelle sama mbokk murit yi bu ñuy euh, bi ñuy defar masaalikul bii tey somme bi ne moo fa ne bi ñuy départ xaaja xaajal bi nekk foon kon nañ leen gëm yàlla te xam ne jumaa ji yàlla moo koy liggéeyal boppam fata dégg naa ko mu naan jumaay milliard attanuñ ko mais nit du xeeb boppam nit ki nit ki noo noo jógee di dem naan fee ma jëm maa ngi fay jëm waaye du ma fa yegg loolu mooy ñàkk gëm sa bopp nit da ngay gëm sa bopp euh, sëmb sumb projet un milliard moom moo ma gën a projet cent

mais man li leen lii du asaka du asaka lu war a liggéey jumaa ci cinq millions si même pas même pas six millions ci ci projet boo xamante ne huit cent quelque huit cent millions la wax ou sept cent cinquante mais loolu du asaka kon nit ñi nañ gëm yàlla te xam ne yàlla mooy liggéey jumaa ji ñoom foofu lañ ko bëgg jaar rek mais seen intérêt personnel moo tax ñuy xeex sa waay sa waay nag mënuñu ko xeex ndax yàlla moo ko fi samp ndax ñoom ñëpp biñ koy fal ñoom ñëpp nga fa kenn manqué amul ku taxaw na manqué na ñu ngi fi wala ñu woote ñu jàkkaarloo ma yow nga ne moom neew ma fa woon ñoom ñëpp fa nga fa woon Cheikh Diop la ñu jox benn invitation ñëwul waxta nee moom moo war a yëgle comme moom am na fu teg boppam te nekku fa kooku ma fa teewul woon mais sinon ñoom ñëpp ko fekkoon ba ci ñëpp ñi nga xam ne ñooy taxaw tey di contester plan bi naan nangam ak nangama nii ak nii ñoom ñëpp ku ci dem wuti plan ñoom ñëpp nga fa woon Samba Mbodj mi wuti plan ma nga fa woon Cheikh euh, Fata mi wuti plan ma nga fa woon kon nañ la kon nañ yàlla te xam ne lii liggéey jumaa la bàyyi Amadou Diop mu tàmb liggéey Moussa le maire nag ñu koy interpellé man musu mënumaa gëm man musu man mënumaa gëm ni yow yow nuñ lay joxé euh, nuñ lay joxé ki nuñ lay joxé autorisation de construction bo xamante imam moko signé nga téye ko fa téye ko fa téye ko fa boobu am même presque 10 jours am ñeneen ñu indi ay autorisation yo xam imam signé wu ko chef de projet signé wu ko nga ne ñaari plan yi moo tax ma ki ma bloqué euh, projet projet ki bi projet waaw monsieur monsieur hein ah loolu loolu Papis sax na si développé xanaa dama lay bàyyi Papis moo ma gën a maîtriser loolu mu développé mais pour pour te dire daal mooy xaas bi de 2018 ba léegi ñu ngi commencé nañ ci euh, commencé nañ 22 juin ba tey jii ba ba ba 22 ba ci ba ci 215e versement amul dërëm boo xam ne réer na ma lépp ngi nii kayit yi ñett am na ko man am naa ko Abdou Aziz am na ko euh, Kenkaari Maam jaar am na ko amul dara lu lépp a ngi leer auzu billahi auzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sunu caméraman bi di nuyu ñu nu àndal ñëpp di gërëm waa Pikine Info bu baax ci opportunité bi ñu may ndax léegi média dafa am dool dafa am solo lépp loo xam ne ni yaa ngi koy jooytu rek boo ñëwee ñoom surtout rawatina loo xam ne dëgg la ñoom dañ koy sawar ndax ni leen gisee rek xam ne yéen ñu baax ngeen ndax sawar ngeen ci li ngeen def kon yàlla dolli ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa rek yow li nga xamante bi ci seen ak maire bi euh, question plan question le maire non seulement seeti sax mais dañ dem ko autorisation bi autorisation demande d'autorisation autant pour moi demand autorisation bi ñu koy yóbbu imam ratib moo ko signé imam ratib ci boppam moo ko signé kon loolu valable na loolu moo warul am benn contestation imam ratib bi mu ko signé chef de projet signe ñu yóbbul ko jox ko monsieur le maire monsieur le maire nag ci li mu wax moom nee na signé na ko waaye moom joxeegu ko moo monsieur le maire ndax li tax joxeegu ko nee na dafa am yeneen ñaari plan mooy ñetti plan waaw kay foofu la ñetti plan yi ñëwee waw kay beneen benn plan bi nga xam ne or or plan Amadou Diop bi beneen plan bi ñëw mooy bu Fata Sarr imam Fata ñoo àndoon ci liggéey bi ñun ñëpp d'accord ci même plan yóbbu ko fu ne kër diine yëpp comme liñ ci wax rek muñ ci naree wax fii di ko répété fi nañuy mais dañuy tënk rek moom Fata ci boppam bi mu ñëw ci jumaa danee moom wutul cër wutul dara mais mujj gi dem na bay bëgg ne dafa bëgg nekk président ndax man laaj naa ko en personne mu ne dafa bëgg président seex mi du ma bàyyi ma fen seex waxaat na ko ci mbooloo seex waxaat na ko ci mbooloo mu woo téléphone seex di ko menacé ak menacé li ci nekk ni mu garaawee enregistrement baa ngi fii ñu téye moom Fata Sarr ndax lan dafa ndax seex dana ko yow da ngaa bëgg a nekk euh, président jumaa ji moom te waxo te waxoon nga ne bëggoo nekk dara moom Fata loolu metti ko ndax nag. moo yey métti ko ndax boo waxee dara ba pare ay xale yu ndaw ñëw fàttali na ne li yaa waxoon xoon te mënoo ci dara forcément da koy métti mu woo kii di ko menacé ndax moom li tax mu defar plan mooy dafa bëgg nekk président jumaa ji ñu waxoon ko ne ko bi ñuy toog góor yëpp ak assemblée générale di di fal góor yëpp toog ñëpp fekke ko dañoo waxoon ne waxi bureau nañ ko teg ne ndax seen bureau moom kaddig na bureau bi dee na bureau amatul ba ci fataa yàgg na ko wax bi amatul jumaa amatul bureau même délégué de quartier bu doon tiitaroo kayitu jumaa ji Fata da naan ko jëm kayitu jumaa ji mooy jëmm jumaa ji kon te kayit taxul nga nekk dara ci jumaa ji kon plan plan Fata Sarr kon Fata Sarr moom position mooy dafa bëgg nekk président ñu gàntal ko ko rek mu beddi dem defal plan commencé di saboté moom Fata waaw moom la yóbbu ci maire ba. ñetteel bi benn góor gu baax nag ndeysaan góor gu baax ndax góor gi wax dëgg yàlla euh, euh, notable la ci quartier bi. ñu koy yox vieux Samba Mbodj moom ba ci moom frère am sax bu jiitu moom moom moom sax laa gënoon doon dégg ci li muy def ci ay xéwal ci jumaa kook di génn àdduna muy Baba Mbodj kooku danaan defa def ba mujj gi man gis naa man ba ma gën a nekk xale moom mu wàcceel boppam camion ñëw lal ay moketam fayal boppam kon nga xam ne yà yàgg naa xaddi kon kon nga xam ne kon nga xam ne moom yàgg na di joxe ay moket te du ko gis ci jumaa ji mujj gi moo ñëwal boppam en personne kooku moom maa bët mu kenn ku ci ne mu jox la dix mille ña ko doon ña ko doon ña doon ña ko doon ña ko doon euh, kii kon moom moom moom moom moom moom moom bi euh, Samba Mbodj mii waroon na taxawee taxawaayu frère boobu nag wax dëgg yàlla moom moom baa moom moom kii mii ni ñu ko moom Samba Mbodj mënoon taxawaay taxawaayu frère am boobu ci jumaa waaye moom plan moom non seulement moom vie sunu vie bu baax boobu moom Samba Mbodj daa ñëw wara boole ndax yàlla moo wax ci alxuraan yéen julliti booloo leen mooy ci bu bu mu sunu borom bi kon moom bu ñëwee di xàjjale non war naa xoolaat boppam te li tax man la dafa xajale dafa ñëw fekk assemblée générale bi ñuy fal Amadou Diop ñëpp toog gor yëpp bi li ko leer ci jumaa ndax moom 40 ans jumaa ji moo newoon moo newoon trésorier yëpp moom te mënu lax dërëmu jumaa ji anamu est ce que loolu yenu na maana moom Pape Vieux Samba Mbodj est ce que yenu na maana kon Vieux Samba Mbodj bi ñu toogee ci ci assemblée générale bi mu ne moom jël na baatam teg ko ci kanamu chef de projet bi jox ko buum fu mu ko diriger mu jëmale ko ndax lu leeree nii mosu ko gis moom bee sàmm mbuj mu dem ba ci biir nag ba ñëpp d'accord bu ne xaalis bi dañ koy yóbbu ci kenkaayre euh, bi nañ ko génne ci loxo yi ak kër yi di ko yóbbu ci kenkaayre bi moom mu xam loolu mu jël alalam alalam boo xam ne du moom kat sax ko moom du moom dong moom ak ay njaboot famille Mbodj ñoo ko dajale moom ci boppam mu jël xaalis bi dénk ko imaam Cheikh Diop. Je li mu Cheikh Diop parce que dafa bëgg dolel imam Cheikh na imam Cheikh Diop dafa bëgg président du ji tamit est-ce que yaangi ku ndax mom kon kon lolu lu mu la ñom lu ñu la mais yalla veux leen wër ndax wax Je fi ci di indi say intérêt personnel suñu borom yag yag dina la je te la Fata borom poste président la sunu borom weer ko mu commencé di saltel plan bi naan plan bi dafa dafa am si ñu xaw ma lan ak si ñu nangam nangam délégué de quartier dégg naa mu naan Fatas euh, dégg mu naan amadu lobby la lobby bu koy financé moom moo xam ñoom ñoo xam loolu ñun xamuñu ay affaire lobby ndax Amadou ku ko xam-xam ne ku baax la ku jub la vraiment yàgg na jël àllam di ko def ci jumaa ji léegi vie Samba Mbodj moomu bi mu jëlee 15 million ëllëg ko mu ñëw jox ko imam ratib wala mu jox bi xam ne lii léegi leer na ndax comité de pilotage fi nekk defu ko dafa jël xaalis bi dénk ko Cheikh Diop pour dooleel ko pour may ko force de pour Cheikh Diop am force pour mën a nekk poste président Fata Sarr moom alal bi ñuy dend ci kenkaari bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy gën a foofu di ko ñaanal Fata nag ku baax la ku baax la waaw dafa juum rek nit day juum ndax xalaxal insaani mil salsaani kal faqaar loolu moom boo ko xamee di nga xam ne nit moom day juum waaye nag boo juumee nangul na juum nga rek ñu ñëpp sunu njaboot la ndax al amin sëriñam di sunu sëriñ day wax ne kilifa boo ànd moom muy naaw ne malaaka yow doxal ni mbëtt yow te xam ne yow yaa ko def kilifa mais moom boolewu la ci njabootam ndax Fata bu taxawee ci diggu rajo jumaa ji di yàq sunu der di wax ala xale yi dañuy jël alalu jumaa di wax Fata bu ne ba xam ne taxaw ci diggu rajo bi di wax xale yi dañuy jël alalu jumaa di ko yóbbu seen kër moom Fata Sarr tana moom daa daa daa daa déggul a yàlla bi moom Fata ndax yàlla wax ne ne nit ki bul ko di lëmbatu ba di ko weer ndax yàlla nee na boo ko lëmbatoo ba mi ngi sóoratu nuur boo demee ni ko fekk yàlla nee na boo ma boo lëmbatoo sama jaam bii ba génn ay ayibam ba weer ko te nga xam ne man yàlla man mi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko. ndax kooku bu defee ñoomte mën na fanaane di jooy di jooy di jooy yàlla jooy yooyu moo ko gën a yombi fanaane naafile kon nag yàlla nee na yéen xamu leen dara noppi leen ngeen maandu ci jaamu yàlla yi loolu fataasaa lañ koy dénk di ko dénk délégué de quartier bi nga xam ne mi ngi yàq réseaux sociaux yi di wax ñun ci dañuy takk suñu jabar yi ci alalu jumaa ji parce que moom alalu jumaa ji alalu jumaa ji moom lu ne la lu ne la ci doon def moom chef de quartier bi ndax yow nga nga yor nga yor euh, euh, nga yor euh, jumaa gestion quatre ans nga taxaw si jumaa ji déclaré sol yële bi mu sol nii comme tey ci man nga déclaré na yor nga cinq millions jumaa ji yow bu cinq millions ji bi ñu dawalee mois ñu ërtën la ërtën la laaj la alalu jumaa ji nga bëgg koo wéer ci ay bor est-ce que loolu yoonu damaana te nga wax ne liggéeyu jumaa ji ay ca internet yi mu ngi noonu ñu leen di fàttali ak ñi ñu toogal ñoom ñoo nekk uh, comité de pilotage bu nekk juma bu rudis bi ñoom ñoo ko yore gis ngeen nag kàddu yi leeral yi nga xamante ni bi indi nañu ko fii mu nekk loo xamante ni moom la ñuy dund ak ña nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ca jumaa ja ba jamono ji ñu koy dund ak ñooñu ku baax balaa ñuy uh, tëj ci waxtaan bi uh, question bi laa laaj laata ñuy tëj moo di nekk wax nga ko muy maire bloqué na seen autorisation ak yeneen ñaari plan yi nga xamante ni dem na ci moom lan mu nga yaakaar ni moom moo tax mu mu bloqué ko ndax dafa ni autorisation yooyu lay càmbar wala ndax dafa am loo xamante ni bii mu ngi ci si mu ngi ci ginnaaw loo xamante ni moom moo waral mu bloqué mbir mi foofu. waaw soxna si ñu ngi lay euh, ñu ngi lay gërëm baax di la jaajëfal. Mm-hmm. pour wàllu autorisation yi xam nga sànq doon nga wax ndax dem nañ ci maire. mën mm-hmm. na la dem nañ ak mhm. sama imam ratib ba imam ratib signé mhm. projet Amadou Diop mhm. bobu yeneen ñaari plan yi ñëwagul léegi nag moom yeneen ñaari plan yi bi mu ñëwee kon da koy def prétexte dan na kon y a problème or que problème amul ndax bu kase bi ñewon bi affaire bi ñëwoon bu ko signé won ci saa rek parce que ndigol imam la mais imam da mëna a ci ñet ñet plan yëpp ci ben juma lolu mënul nekk kon bi imam wax boobu mooy dëgg léegi monsieur le maire moom bi ñu ñëwee déposé sunu autorisation bu yag la ko waroon signé moom li mu wax nak dané comme yeneen ñaar autorisation ñëw na. Mhm. kon day taxaw xaar. Ah. kon y' a ci li mu wax. Mhm. waaye ñun ci ñun suñu analise ak fi ñu jaar na affaire yi ak mhm. affaire politique politicien. Uh-huh. délégué de quartier bi nga xam ne moo saax saaxi alalu jumaa ji def ci lu ko neex. mooy Samba dra moo uh-huh. waaw Samba Dara. Uh-huh. moom jabaram. mooy premier adjointe maire bi Amadou Diarra. jabaru jabaru délégué de quartier bi nga xam ni moom moo fa nekkoon moom moo sax saaxe alal jafa njëkkoon a nekk. waaw alal jumaa jabaram moom mooy. premier adjoint ci monsieur le maire fii ci am Amadou Diarra. Uh-huh. kon te biñ defee woon sunu sunu sunu pose première pierre beeg yëpp ba de ba jébaane li fi xewoon ci jumaa ji yeeg ñaawlu doxalin beeg euh, jabar ji jabaru Samba ci boppam. Uh-huh. premier adjoint moo ñu wax ne. combat bi newatul yéen ak sama jëkkër waaye man ak yéen la. moom soxna si moom soxna si te bi mu koy wax mi ngi nombre bi. ba fi may waxee ni moo nekk premier adjointe mm. kon ñun sunu xel foofu la ñaaw ne moom mm-hmm. moo togg loolu moom madame le maire moo jox sax correspondance am mm. ñee yóbbu ñee yóbbu ndax correspondance maire du ñëpp koy am mm-hmm. nañ waxante dëgg man mm-hmm. musuma ko te maa ngi fi lu luy intéresse gox bi rek lu ne ñu ngi ci waaye mus mosuñoo am am correspondance am kon moom loxo mi ngi ci biir Amadou Diarra monsieur le maire nag dama koy fàttali di ko wax ne ku takk ku takk neexu la faral neexu la faral de. Mhm. ndaxte moom euh, délégué de quartier bii. xam ne lu ne def na ko alal jumaa ji ba toog ci rajo yi di di wax au di woo autorité yi naan nañ tëj jumaa ji ngir ñàkk pexe. Mhm. jara bu ko bëggee jàppale ba tax mu tare suñu autorisation ndax war na ko kase mu ne kase bi newul ci moom. Mhm. xam nga ne loolu président de la République bu ko déggee war na ko dégradé moom. parce que loolu lu erreur bu rëy ngi noonu. kase kenn ku ne yaa ko yoral sa bopp nit ñi nelawuñu bu téyee kase yi di ñu tarre di ñu wiiri wiiri wiiri wiiri ba mayaale ñee occasion ñu mën a ñëw indi yeneen plan pour mën cee sukkandiku mhm. pour ne jumaa ji fa am problème eh jara arrête jumaa ji amul benn problème ñoom ñoo am seen problème mhm. ñoom ñu bëgg a nekk président et consort kon jara ñu ngi lay ñaan suñu autorisation comme nee nga signé nga ko mhm. ci ci bi nga xam ne moom la ñëpp d'accord ndax Pikine Nord wax naa la yow Pikine Nord fii yow nee naa la sànq yow jumaa ji ni mu naaj bu tàng maire yow sa budget anamu mënoo di génne dix baas yow monsieur le maire nga dimbale ci jaamu yàlla ci naaj bu tàng bi. yow defoo loolu nga tardé suñu autorisation ngir jàppale Samba Dara bi nga xam ne alal jumaa ji moo ko lekk. tel muy leer preuve yaa ngi nii facture yaa ngi ñëpp gis nañ ko. Uh-huh. kon monsieur le maire arrête. Uh-huh. arrête jox ñu suñu autorisation. Uh-huh. teg ko ci loxo imam ratib ndax imam ratib moom wóor na ko bu joxee imam ratib autorisation bi. imam ratib bi suba dina ko jox Amadou Diop mu liggéey ndax imam ratib doxul ci ay caaxaan doxul ci ay tappale. délégué de quartier bi nga xam ne nag moom jabaram moo nekk fee ca maire ba. non injustice bi nag doy na sëkk nañ ci président président de la république nañ ci dimbali jàppale ñu ci loolu. Mhm. comme moom mooy njiitu réew bi ñu ngi koy euh, woo ci loolu mu dimbali ñu ngir Amadou jara mii te moom Amadou Diarra dégg naa mu ne day woote waxtaan pour jumaaj moom du moom mooy régler jumaa ji Amadou Diarra jumaa mbiru diine la imaam bi moo fay seef. Mhm. kon nañ bàyyi imaam raati woote waxtaan bi. Mhm. mais pas moom. ndax moom euh, euh, position de de de de moom dafa far moom moom moom moom moom monsieur le maire dafa far. te ki faral dafa takk. yoo boo xam autorisation bi jamono ji mbirum politique moom moo ko tardé. moo ko tardé mhm. loolu rek moo ko tax jabaram jabaru Samba Dara bi nga xam ne moom newatul dara ci jumaa ji alal jumaa ji yëpp moo ko tardé mhm. jaay suufu jumaa ji ñu fay ko xaay ñu fayal ko ko. Mhm. fayal ko facture courant yeeg lépp kon moom ci boppam amul lenn loo xam ne nii moom. moom moom moom moom monsieur le maire war na ko mën a dimbale. Uh-huh. monsieur le maire daal ñu ngi lay ñaan encore une fois suñu autorisation jox dox ko jox ko. imaam ratib mhm. ñu tàmbali suñu liggéey jumaa ndax ñëpp yàkkamte nañ te maire daa muusul yow ñi nga xam ne ñoo réclamé ëpp majorité pour Amadou Diop liggéey jumaa ji Pikine Nord lañ di ndax jumaa ci biir Pikine Nord la nekk. Mhm. bu yeboo sax ñu def adresse adresse Pikine 3 wala ancien yàgg yooyu. kon mais monsieur le maire quand même il faut qu'il arrête. jamono ji lan ngeen di xaar ci ñoom maire bu leen indilul seen autorisation lan ngeen nar. non maire suñu indilul suñu autorisation maire am na ku ko supérieur. maire am na ko ko supérieur te ñun dans la légalité lañ ne. Mhm. boo bëggee gisee ñun wiiriwuñu maire mënoon nañ ko jéggi mais maire ay ay seefam yu am pagaay mënoon nañ ko jéggi mais mais bëgguñu weñ loxoom dañoo bëgg rafet rek teg ko dans la règle de l'art mhm. kon nag moom na nekk intellectuel nekk nit moom booy Pikine la li xaw ci jumaa ji yëpp xam na ko. moom xam moom non seulement moom loolu sax mais maire dédommagement bi nga xam ne joxoon nañ ko ko alal jooju ana desit bi moom monsieur le maire. desit bi ñun ñoo ko fayal kon jumaa ji moo ko moom war nañoo mën a indil ay kayit yu koy justifier benn par benn moom monsieur le maire mais il faut qu'il arrête na bàyyi loolu muy def parce que euh, sama sama premier moom premier agenda dafa sori ci moom ndax man dañ daan ci bedd bi fii quatre heures du matin cinq heures mais da nga naan euh, suñu wàccee ñu ne séminaire la la ñu àndoon dem kon kooku sori na ci yow. kon kon nag kon kooku mooy jàppal tànk borom këram kon monsieur le maire il faut qu'il arrête nañ jox suñu autorisation suñ ko joxul nag. bu joxul ah, kii euh, moom imam ratib bu ko joxul autorisation bi ñun dinañ dem ci ay supérieur am hmm. waaw parce que il est temps mu jox autorisation moo gën muy jàppale ñoo xam ne ay ñoo xam ne dañoo tardé àll jumaa ji sacrifié jumaa ji moom moom mu ñëw ànd ak ñoom non jara da ngay waar moom dafa mel ni nekkul. booy pikin la nga wax sa sa kàddu gu mujj daal di eh, sa gars yi xanaa di gërëm ñëpp di sant ñëpp. <laughs> Uh-huh. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di benn point bu ndaw rek balaa may tàggoo mooy ci autorité ci euh, plan yi xam ne moom la imaam Cheikh Diop imaam Cheikh Diop moom. newoon naa moom amul chance nekk président jumaa ji parce que moom bokkuñu pas-pas. maam Abdou Aziz moo tegoon jumaa ji pose première pierre moo tax biñ koy tegaat ba invité ay doom sax ñëwul. Hmm. ñëwul waa moom ñëwul. Hmm. kon moom na na dem ca jàkka yi xam ne ñoom la gëm ndax moom 40 ans gestion yi moom si yu mujj yi yu mujj yi yu mujj yi yu mujj yi moom moo ci newoon vice président te mun laa xaalis fa la nekk. katara mm-hmm. yu Samba Dara bi xam ne moom daa lekk daa daa dafa defa lu ko neex ci jumaa ji ba pare di woo autorité jumaa ji. Mm-hmm. moom jamono jooju moom Cheikh Diop moo ci newoon quatre ans yi moo newoon vice président kon war na xam xaalis mu ne. Mm-hmm. de même que sab vieux Samba Mbodj sunu paa baax boobu moom nag moo newoon trésorier bi jumaa ji quarante quatre ans yooyu yëpp te mun laa fan la dërëm ne. kon moom bu yoree alalam war ko indi ci jumaa ji indiwu ko dem jox ko imaam Cheikh Diop pour doolel ko pour imaam Diop nekk président mhm. non il faut que mu arrêté ndax moom daa féewale jumaa ji. Mhm. moom wax dëgg yàlla ak moom taxawaay bi mu waroon am mooy boole. Mhm. waaye ni muy def ni moom vraiment lu xeebu lay def. délégué de quartier tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax man dañ koy yërëm ndax kilifa boo xam ne nii boo toogee di wax ñëpp buñ déggee say wax dañ la ciy xeeb. ndax di weer doomu aadama dugg vie privée jàmm di formation loo xam ne mën na la cee tëj kaso nga taxaw ci rajo bi di ko wax xam nga di karee xam nga loolu ruslu na kon nag luy duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li ndax liggéey jumaa ak projet moo tol noonu te ñun nag mhm. ay ndaw la yu maîtriser jumaa ji ndax 2006 ba 2011 bi ñu paay di wax ne comme kii wax na ko léegi xaaral lañ jox leen ngeen naan café wala paay di wax ne toog leen ñu jox leen ci magasin ngeen séddoo ngeen noppi loolu yëpp ñu bañ ñu jiital rek bañ xam ne moom vaaru yàlla bi al yawma naxtimu alaa afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun moom lañ jiital ci jumaa ji ñoom nag bu fekkee jiitaluñu ñu leen def leen neex ñun de wax dëgg yàlla yàlla dimbali ñun ñu taxaw ci tali bi semaine ñu dugal un million sept cent soxna si mhm. kon trente huit millions yi nekk fee boo xoolee vingt sept millions yi fa nekk yëpp ñun ñuy taxaw ci tali bi ko fa dugal mhm. xaalis boobu ci lañ Samba te dañ war na war na am xam ne yalwaan bi nga xam ne moo ko fayaloon moo war na ko weg ndeysaan dama ko yërëm ndax des fois mu fekk ma ci tali bi sax jël téeméer na ma lii man maa la ko may. Mhm. ma ne ko wax nga dëgg de ndax da ngaa xam ne lii fardul kifaaya la. ma ne ko fardu kifaaya comme ça nga néew rek bu ko ñii taxawee rek day wàcc ñeneen ñi te yii yëpp jullit yàlla yëpp la waroon taxaw ndax wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu xam nga kon nga xam ne kon Samba euh, gis nga tànk yi mu taxeen mu gi mu dem ba di di sànni xeer di xas moo tax mu ko yërëm dama ko yërëm seytaane moo ko man mhm. seytaane moo ko man ndax kenn ku sañ boo sañoon kenn du la gën uh-huh. kon jërëjëf kontaan nañ uh-huh. di leen gërëm yaa waa Pikine Info waa di gërëm ñëpp di ziar ñëpp di baalu ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax doy na waar a lu jumaa yi fépp la waaye nag gars yi nañu gën a bàyyi xel ni que juma du propriété société privée alalu mbooloo la ñëpp ko moom ñëpp ko bokk a nañu bàyyi jumaa yi ñuy jël bëgg koo def seen i moomeelu bopp ku baax yow ñoo tàmbali woon waxtaan bi ma daal di bàyyi la yooyu tamit rek nga daal di tàggatoo daal di tëj ñu daal waaw euh, tàggatoo bi nag ak tëj bi ngeen euh, baal ma tuuti rek may ma tuuti rek ma am loo xamante ni faw ma xaw ci leeral tuuti. Mm-hmm. Euh, parce que soxna si bu fekkee man damay màjjal en 2014. Mm-hmm. ma ñëw fekk ñooñu sunu imam bi ñuy wax imam Cheikh Diop. Euh, ñuy régler seen beneen bureau boo xamante ne parce que ma ñëw ba ne liggéeyu jumaa ji rek fekk bi ñuy defal suñu miir bi en 2014 ñoom ñu génn ne ma liggéeyu jumaa ji ma ne bii ñu ne ma c'est pas vrai parce que liggéeyu jumaa ji jumaa ji bureau bi mi ngi nii di réunir kon ñoom ñu ngi doon togg foofu seen benn bureau uh-huh. bureau boobu tey sunu vieux baabu euh, sàmm Mbodj su ñëwee jël xaalisam 15 millions war koo dugal ci liggéey jumaa ñoo fekk ci commission bu légal bu ko may fit pour mu dugal xaalisam ci liggéey jumaa ji romb fi commission bi romb fi imam ratib bi fi nekk dem ci imam Cheikh Diop boobu jox ko xaalis bi ñoom ñu ngi ut foofu kon benn force mm. ci man ni ma ko jàngate mm. euh, force boobu ñu doon ut foofu euh, bi ñu demee ba Amadou Diop taxaw ci diggu jumaa ji ne leen man maay fay entrepreneur bi maa koy jox avance man maay liggéey jumaa ji ba jumaa ji taxaw man maay fay manoeuvre yi ñoom ñu xam ne seen force boobu ñu doon jéem a euh, def Amadou joggi na force boobu ci la ñu daw ñoom indi ay plan yi dañuy contrecarrer te plan Amadou bi fekk na mu daw un an presque six mois moins de deux ans kon loolu suñu dawee ñëw rek xam ni Amadou joggi na leen moo tax ñu daw indi plan yi ne dañuy contrecarrer mais dafa am benn benn benn lobby bu ñu doon togg pour doon kilifa ci jumaa ji mm. beneen bi ci des mooy Fata Fata Sarr bi ñu demee tàllal ko ay loxo mu ñëw ci jumaa ji fexe na fexe fexe parce que ñun boobu lu mu ñu wax ñu ne waaw parce li ñu bëggoon ñun mooy am accès ci biir ba mën a gérer jumaa ji mm-hmm. bi mu ñëwee wax ñu ne léegi damay ànd ak paa yi ñu def fii cinq fii cinq ñu liggéey dañ ko ko nangul mais mu fexe tamit ba euh, xaalis bi di dem ci benn secteur boo xamante ni moom moo jël garantie bi teg ko fa euh, ñii bi ñu demee ba bëgg a génnee xaalis bi nga xamante ni moom mooy euh, liggéey bureau yeeg yooyu nekk ci biir jumaa ji ñu war a accompagner liggéey bi ak toilette yooyu bi ñu demee di génnee xaalis borom kenkaayéer bi dafa ne du génnee xaalis bi parce que Fata àndu ci nee na problème dafa am dañuy waxtaan ba pare kon Fata tamit foofu mi ngi fa doon créer benn force boo xamante ni bi Amadou taxawee ci digg jumaa ji wax ni lii laay def ci jumaa ji moom ci la daw indi plan yi day contrecarré parce que seen force boobu ñu doon yaakaar Amadou joggi na ko plan boobu moom la dem un an et quelque ñëpp d'accord ci plan boobu euh, mu def étude bi def lépp ànd ak euh, imam ratib bi ñu dem ba ci monsieur le maire imam rat bi signé ak pièce d'identité projet bi signé monsieur le maire nee na defar na autorisation bi ci li mu wax mais auto euh, livré wu ko ndax problème bi am kon cas yooyu ko téye du du du du cas euh, yoon noo yooyu ko téye du cas dëgg dëgg li doon yoon mooy ñu génnee loolu joxe ko euh, bu ngeen ma mayee nag dinaa wax ci problème mu pourcentage bi tamit centage yom vingt pour cent bi man maay ki njëkk a taxaw bañ ko man maay ki njëkk a taxaw bañ ko ne leen lii ma gis fii premier versement journée ma def deux cent et quelques mille Euh, deuxième versement ma def lu ëpp loolu ma ñëw ne leen lii bés bu ñu toppee vingt pour cent yi bis mi ngi ñëw nit jële fi xéewal yoo xamante ni jumaa ji du ko waxuma du ko attan mais jumaa ji dafa soxla kon nañ leen fexe nan la ñuy wàññee loolu sunu gars yi biñ ci d'accord ñu dem ci commission bi wax ko Samba Dra mi yàq sunu der ci vingt pour cent yi moom mooy ki njëkk a bañ loolu li vingt pour cent yi mag ñi ñoo ko fi bàyyi kon dañ fi bàyyi vingt pour cent yi xëccoo nañu ci biir wax bañ ni léegi ku neex ku mun ku bëgg jël vingt pour cent na jël ku bëgg a jël diis jël ku bëgg a jël ku bëgg a bàyyi bàyyi Abdou Aziz Diagne mu ànd ak moom tey ne non non li ñuy def mooy dañuy dañuy dañuy euh, bu ngeen bu ñuy jëlee ñi bàyyi rek ñi bàyyi dinañ pénaliser ñiy jël léegi nañu yamale lépp def 20 pour cent ñëpp di jël loolu moo fi bàyyi pour cent yi ndekete ñoom liñ ci doon def boobu mooy ko tey ji bu bis bi ñëwee ku gémmiñam dina ci wax jàmm ñu mën cee taqal doomu aadama yi lii mooy problème mu 20 pour cent yi. léegi euh, lu waral xaalis boobee nga xamante ni bii yéen a ngi koy récolté ci jumaa ji yóbbuwoo leen ko banque ngeen koy yóbbu di ko dénkaane ci kenkaayar yi. waaw xaalis boobu bi ñu koy fekk na problème am boo xamante ni boobu ñun amoon accès ci biir jumaa ji sax doonoon na sunu problème moo tax ñu daw wooyu Fata mu ñëw Fata ñëw ni nii laay maîtriser problème bi nañ leen dajaloo nekk dix personnes mag ñi cinq ñi ñëw cinq di xeex jumaa ji ñu dajale leen ñoom ñu nekk ci benn commission mais nag jumaa ji euh, xaalis bi dootul dem ci kër kenn comme Sàmb moo ko doon yóbbu ci këram neen dootul dem ci kër kenn léegi nag li wéttu wóor mooy pour ñu bi maîtriser ko nañ ko yóbbu ci kenkaayéer dina exi fi nañ ko yobbu ci ngeen kayere bi diko fa tek sak aljuma ñuy taxaw ci diggu juma ji di len annoncer limu am aljuma bu ñewate ñu waxat len doomu adama yi di xam luñ ci jël tamit dañuy dem wax ak ñom lolu mo taxon ñuy baye xaas bi di dem ci kayere mais xaas bi tol na fo xamante dañ ko fa wara récupérer yobbu ko ci banque bu deug de deug lolu moy deug mais nak banque tamit pour nga dem yobbu fa say euh, euh, numéro contact mm-hmm. da fay am keuyit kayit yooyu document yooyu nga xamante ne dafa war tax mu war am kayitu juddu moom la Amadou doon créé ba taxoon mu laaj ñu bëri seen casier judiciaire ñu ne duñ ko indi mu mel ni seen casier judiciaire dafa xaw a doy war mhm. mais loolu la bëggoon ut pour mën koo dem ut ci euh, compte bancaire pour lu amati ñu di ko verser ci tuuru jumaa ji mhm. mais nag euh, euh, gis nga problème bi mu mujj tey mm-hmm. léegi daal li ñuy wax mbokk yi te di leen ci tàllal loxo di leen ci ñaan mooy mm-hmm. ñun ñëpp ay julit lañu. Mm-hmm. ñun ñëpp ay jullit lañu jumaa ji nag euh, nekk ci kilifa wax dëgg yàlla wala intérêt personnel ku mu tax nga bëgg a tëj jumaa ji ñu ngi tàllal julit ñu loxo loolu bu ko kenn seetaan. parce que lii rangoo ñu diine islam la lii diini islam la xolam tooy képp ku naan ashadu an laa ilaha illallah la ñëw taxaw nu ngi lay tàllal loxo parce que nag euh, ci xisa yonti yàlla daawode bii nu wax ni dafa doon atte ñaar ñoo xamante ne dañu doon xëccoo benn doom waaye bi mu ñëwee ni comme da ngeen koy xëccoo xaaj leen doom ji ci digg bi kenn bi dafa d'accord ne nañ ko xaaj ki ci des ni déedéet buñ ko naree xaaj nañ ko jox doom ji mu ne ko kon yow yaa moom doom ji ku doomam du bëgg xaaj doomam kon ñii nga xamante ni tey jii dañu ñëw ba fii ñu bëgg tëj jumaa ji mooy que dañ ci gisatul seen bopp intérêt personnel moo leen ci dugal mm-hmm. nañ ñu dimbali lillahi wa rasul sunu jumaa ji ñu bàyyi jumaa ji ñu liggéey ko jumaa ji nag mbir la moo xamante ni dañ leen di tàllal loxo rek di ci xeex parce que ay doomu aadama lañu euh, tàllal loxo julee ñu ni ngir ñu di ci dem mais nag jumaa ji yàlla moo pare pour liggéeyal ko boppam képp ko pare pour gàllankoor ko ak ku mu mën a doon yërëm naa la mm-hmm. wallaahi yërëm naa la mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñu ñu may possibilité ñu mën a taxaw fii tey mhm. leeral lii sunu caméraman bi sunu soxna si nga xamante ni moom mooy euh, journaliste bi di dañu interroger mhm. euh, àdduna bi yëpp ñu ngi leen di tàllal loxo mhm. euh, di leen wax ni appelu Samba Dra boobu kaay leen tëj jumaa ji autorité bi yàlla bu ko yàlla sunu borom bi nangu asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum ngeen jëf yéen i tamit ci ànd bi ak kóolute bi Pikine Info ali lañ leen indiloon tey mu nekkoon ay leeral ci coowlu jumaay rue 10 bi dig daje la ñu leen di jox beneen yoon ak yeneeni i programme fii ci Pikine Info ñuy gërëm bu baax a baax Ibro ci ginnaaw moom moo nekkoon ci technique bi jaa ngeen jëf internet yi. Cheikh Tidiane wàcc soodaan la ilallah xayartu yi kenn du lëndëm di taal làmp bu ñuul lumière bi feeñ na sëriñ seex as barxaama borom li jaaba nekk ku yàlla baaxal ci wàllum xam-xam kenn naa tableetul ni moom mooy sëriñu Real de Madrid waaye tamit di ñaanal leen ki nga xamante ne mooy équipe national bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu baax te gisoo leen ko dal leen a jàmm sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mi caq sonal ba loo dugg doo ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seeti sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mii di wut wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu dab sonal ba amagoo borom kër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo mun ti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir te lépp koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jaam ñi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom lijaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24 77. wala it si 77 982 55 40 ak Serigne Cheikh As Barxaama borom li jaaba dimbali jaam ñi mooy suma aaj. Cheikh Tidiane wàcc soo la ilallah xayartu.